leen siyaar di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp ci àdduna bi ak fu ñu mën a nekk di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko te wéral ko di ko ñaanal kilifa diine yëpp ak jullit yëpp di siyaare mboolem ñu nu bokkal euh, plateau bi yëpp ak mbooleem ñu ni seetaan fu ñu mën a nekk xam na loolu sax naruma ci woon a wax dara waaye comme laaj ngeen ko dinaa leen ci leeral tuuti mm-hmm. ak soppee nit ñi nga xam ne ñu ngi bëgg dégg dara mm-hmm. dafa am benn euh, vidéo boo xam ne dama koo defoon. Mhm. waxtaane ci waajtaayu Kazu Rajab am benn site internet bu ñuy wax Rafa TV. Mhm. dama invité woon sama kër la woon ci sama kër lañ ko doon defee. Mhm. émission bi diire na quarante trois quarante minutes wala quarante minutes. ñu ci waxtaane waajtaayu Kazu Rajab waxtaan sëñ Fallu ñu laaj ma ci lii xew ma ne noo man ko tawat jooju xaw ko daal. et bu amee it. nan ñu wax fi mu am ñu moytu ko. Mhm. et ñu wax ñu ñim dal. Mhm. ci topp ma teg ci ne nañ déglu li docteur yi digle. mooy ñu moytandiku te sàmmante ndax ak wiqaayatu xayru min al-ilaaj. Mhm. dal di na ba ma jeexalit wax naa ne Sénégal nag lii seen problème mooy lu ñëw ñu wax ca. bu football ñëwee ñi ay coach la ñuy doon bu bëre ñëwee ñu nekk ay ménagères mais nañ bàyyee ñu ci war a wax ñu wax ci. ñu dagg diggante boobu deux minutes wala trois dugal loolu.

ñu ngi may toppal li am ci àdduna bi li xew ñu woo ma ne ma ñu ñëw indil ma benn vidéo na ma dañu wax ne daal dañu la convoqué yow ak diw ak diw ma ne non man loolu yëguma ko mm-hmm. yëguma ko vraiment nañ ma wax ñi ko def ñu wax ma ko ma woo leen mm-hmm. ne leen man kenn convoqué wu ma nañ ko dindi daal sa boobu nit ñaa ngi tàmbali ñëw sama kër mm-hmm. sama mbokk yi tàmbali di ñëw nit ñi di ma woo fu ne daal te man yëgooguma ko jotuma benn convocation ma ne ah yaakaar naa bu ñu ma doon convoqué dañ Eh, yoon moo may war woo daal mais duñ ma woo ci ay ay ay presse wala ñu dem ma woo ci ay jékki-jékki rek wax loolu comme xam nañ ma kon xam laa ma wooyee ma wuyu. loolu laa wax daal. Mhm. Eh, léegi ca fekk boobu woowuñu kenn woowu ma. Mhm. yëgu ma ko daal noonu laa déggal réew comme bu ma déggee loolu ay nit di ñëw sax ña maa wax ne kenn ma. Mhm. ñi ma wax waxal loolu ma ne nañ ko ma. léegi ci ëllëg eh, may wooyee ma dem wujji parce que citoyen la. ci réew mi laa nekk bu ma yoon wooyee dama war a wujji sa sëñ laa di wax nit nag jëfa ma koy tax a tiit jëfa ma koy te tiit mm. man moom xaw ma ci sama adduna lu ma def loo xam ne buñ ma wooyee warumaa wujji wala war na ma tiit yaakaar naa teel na maa wujji lool nag mm-hmm. ndax bañ ma wooyee neuf heures et demi euh, dix heures man neuf heures et demi fa la fekk parce que waxoon naa leen ne leen saa yoon ma wooyee rek ma wujji am na oto am na mm-hmm. essence te xam naa yoon vraiment bi ma ñëwee ma fekk fa ñu baax ñu baax mooy ñu am respect ci daal mm-hmm. ñoo xam ne boo ñëwee dalal nañ la génneel ma vidéo bi na ma yow yaa wax lii ma ne leen waaw mais dama ne xaw ma ko comme dal nañ ko wax ñu ñu xam ko mën a moytu ñoom ñoo ma jàngal feebar bi ñoom gendarme yi mm-hmm. enquêteurs yi ñoo ma wax ni muy dalee nit sa bët day day xesan sa mm-hmm. et day xesan da ngay sa mel ni kuy fatt mm-hmm. ñoo ma ko jàngal biñ pare ma laajaat leneen léegi ku koy moytandiku noo koy moytandiku mhm. ñu wax ma comme jonjoo beeg daje bi nit ñi ñoom gendarme yi enquête ñu ngi may setaan mhm. comme daje daje nit ñi ak akolante yenn yi ak tisli pour jàkkaarloo lu sëqat yi mhm. ak nuyoo yi yooyu moo koy kii ma ne leen ok noonu la ñu ne waaw ñu ne ma li ci des mooy li nga laaj nga xam ne moom la gars yi bindoon na Gana Messere dafa wax ne nañ wax seen i tur mu ne ma loolu loolu sutura la kenn waru koo wax parce que kenn warut a weer tawati jàmboor ma ne laa kon la loolu la comme man xaw woon feebar bi mhm. dama jàppoon dañuy war a wax rek mhm. comme comme dal ni mu demee pour nit ñi moytandiku ma ne ma loolu secret la maanaam sutura la mhm. kenn du feeñal tawati jàmboor ma ne ma bay loolu yaakaar naa mi ngi war a diire presque quarante cinq minutes noonu la dem après mu ne ma pare amul looy dolli mu ne ma signal fii ma signal mu ne ma ñu continuer liñ doon wax mu laajaat ma yaa def vidéo bi ma ne ko waaw ma ne ko vidéo bi 40 minutes la ëpp na lii daal. du diggante bi. dafa am luñ ci dagg. waaw dafa am luñ ci dagg dugal ko bàyyi li ci des. parce que buñ doon dugal mënoon nañoo dugal li ma wax ne. nañ nañ déglu li docteur yi wax. Mm-hmm. loolu la demee bi ma fa jógee it loolu rek la de. Mm-hmm. jógee euh, li tax ma noppi. bi ma ñëwee dama am kilifa. parce que sëñ bi sëñ maam Thierno maa ngi koy nuyu di ko ñaanal. yalla yagal khalifa seigne Cheikh Awa ya di ñaanal sama seigne seigne mamadou Mokhtar moy seigne Cheikh Awa moy khalifa seigne sëñ seigne mam tiaro moy khalifa seigne Cheikh Awa mo jité jabotu daru manan Manaan muy sama bay di sama seigne sama goro ndax domam la yor mune ma ci bis bu njëkk bi mu woma ma ñew fekk ko Bambey mhm. ma ciow li dafa bari dañuy wax dañ la wo ma ko yego ma ko de mune ma lutax yego yëgoogu ñop ñu diko wax ma ne ko ah ko mune ma buñ la woyé dama ko wax ma ko dañ mhm. ma woyé ma wax ko mune ma demal wujji mhm. te bu ko wax kenn te bu boo fa jógee bu ma la dégg nga wax ak kenn te ñëwaatoo ba ci man. bi ma fa jógee bi may dem sama waa kër yëguñu dama leen wax rek na leen sëñ bi daf ma woo daaru daf ma woo bayti sama chauffeur mi ñu jàppaaree ma na ko fayal sa téléphone parce que comme sëñ bi nee na ma demal wujjite bu ko wax kenn mhm. bëgguma ñuy laaj kenn yëg ko mhm. bi ma ñëwee Touba waxuma dara parce que comme sëñ bi nee na bul wax te feyuma sama téléphone mi ngi sonné mais sëñu ma wuyu parce que bi gisaguma ma bàyyi ba ci ci ci treize heures sëñ bi woo ma dama mhm. gisaguma la ma ne ko dama ñëw sonn nag doon dallu mu ne ma na nga fi ñëwal léegi mhm. falaa jullee timis mu laaj ma lépp ni mu ma wax ko nii la demee mhm. wax ko li ma tontu wax ko liñ ma laaj mu ne ma kon baax na mën ngaa dem ba ma fa jógee nag fekk émission bi moo jiitu bii nii xam nga dañu bàyyi xel ne programme woon bi pour lii dañu invité émission bi moo jiitu dañ ko programme woon pour waxtaan ma jox leen sama kàddu pour ñëw ñu dem waxtaane Serigne Touba waxtaane Serigne Fadil mhm. xam ne lii bu xewee ngeen laaj ma koy dinaa mhm. ko tontu mhm. looloo tax ma di ci wax te lii ma ciy wax nii tey moo ci sama dernier ma di ci waxaat du ma ci mayaat kenn nga li ma ci laajat aw ma ma ciy wax aw ma temps di werante ak a xuloo ak a coow ci amul sens man la ñu woowoon ñi ma woo ñi ngi ñoom xam nañ man min woowoon liñ ma wax man mi leen ko waxoon xam naa li ma leen wax ñi ngi jàkkaarloog man maa ngi jàkkaarloog ñoom Gana Messere demul fenn di wax maa xamal nañ ma ko. ñi mu dal nañ leen ko wax non loolu secret la. Mhm. jeex na. Mhm. lu ma ci lu ma ci raam ci kanam kenn ak sukk ci kanam kenn waxuma lu may raame ci kanam kenn waxuma lu may sukke ci kanam kenn waxuma lu may jéggaloo ci kanam kenn ci réew mi laa bokk yàlla boole na ma ci ñi am kaddu bu ñu waxee danañ ko dégg mhm. tey ñi jël seen alal di joxe man dama bu ma amee alal ju ma war a génne joxe dama war a génne sama alal joxe bu ma amul alal ju ma war a génne joxe mais bu doon ñeenti ni sax dañ may déglu hmm? am naa sama sañ-sañu sax leeral nit ñi. waaye jëluma waxuma kenn man may may def campagne ji wooteel kenn wala may nangam awuma boobu jot ñoom ñi ma woowoon nee naa la ñu ñu am respect lañ ci nit mhm. ñu xam cëru nit lañ. ku fa ñëw li nga moom muy sa gëdd dana la ko jox. d'accord yaakaar naa ñoom yooyu problème maa ngi eh, li tax ma di li ma ciy tëjee daal mooy. Mhm. woowoon nañ ma. ji naa lii lañ wax leneen lu ci nit mën a wax commentaire ko ci awma temps nekk li ci waxante wala ma ci wax gudd na wala ma ci wax gànn gànn daal benn problème la la ma waxoon lay wax toujours ku bëgg xam ganna wala nga bëgg koo jot daal mhm. laalal sëñ Tuubaa mais ku ne ko xoos ma ne la xalaat mais sama jëm moom Aliou baa ngi ci ginnaaw bindal mais loo bindee dëgg rek lii daal la demee mooy problème maa ngi jégalu nag euh, ñi nga xam ne fan yëpp ñu ngi am jaaxle ci naruma ci woon wax dara it parce que mhm. amul sens su ma di ci wax aw ma jotug bind. yaakaar naa ne leer na leer na bu baax uh, ci ni nga fële dañuy waxandi sax uh, ci wàllum sëñ tuubaa ni ñu la ci xamee uh, di sëñ bu mag bi. gis nañu ni ay jamonoom ay wàllum bas doon na am est-ce que mën nañu xam li nga xamante ni moo doon taxawaay sëñ bi ak li mu daan digle ñi nga xamante ni daal ñoom ñooy taalibe wala sax jullit yi. xam nga feebar moom yàlla moo ko boole ak doomu aadama. Mhm. jiitu na sax sëñ bi. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yi jiitu woon yonent yàlla demoon na ba yaram yaramam ràmm am ayuba ayuba demoon na ba yaram am góom am lépp ba bañ bañ génne ko am yonent la feebar kenn mënu ko bañ Sëriñ Tuubaa nag dafa am position bu mu taxawee ci lépp parce que li mu taxawee mooy boo demoon tey da nga fekk xaside yoo xam ne ñaan rek la ciy def ñaan Sëriñ Tuubaa dafa nekkoon citoyen boo xam ne ku ko gënoon a respecté li réew mi laaj amut li mu nekk nekk kilifa te ko top top, top limi am am sañ-sañ jubo jubo juboo ak boromam musul am ben bis ba ci tubaab yim dan daan jàmmaarloo am ben bis bo xamne ne sëñ mas na faussé te ben ordre buñ ko jox te wul ak ndigalul yalla même lolou lañu ñu sëñ Tuubaa digal noonu maanaam bu ñu leen même ñu seen niti rew seen njiiti rew buñ len leen na ngeen and ak ñom fek digaluñ leen lu yaq diine buñ len leen lu yaq diine duñ ko nangu parce que diine diine yalla sëñ Tuubaa lu ma sa ñew ñaata participation la def ci réew mi jël alalam joxe ba muy joxe cinq cent mille ñaata milliards la bu ñu ko bu ko xoolee ci jamono mu joxe woon ko pour jàppale jàppale nit ñi lu ma sa xew day ñaan njabootam di ñaan mas mi bi mu amee dafa ñaan lu Cheikh Mahamadou Lamine Bara doomam mas am na mu woo ko mu mu ñaan ana xasida yi tey bon yaa rabbana innal wara tadarra'u li awliyak ma li am ilayka yaa rabbal wara yaa rabbana yaa rabbana fakun lana wajhana laa lub fa nga xam ne yaa yaa man taxaa la lam ko fa شن جواب ولا بيلا غفير أنت الرحيم الصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسوء إلى الأعضاء كل ده لو كنت تكلم بلا لو ما يخوال بيمي تبي الله يو يالله كو كو مجكي يو كليفكي يو ميخم لي يالله يا دكار لو نيب يا أجيرمان اكفي البلاء وجملة الوباء فقال بلاي أجمل مصيبة يب تجل مصيبة أي جمع كتير نون الإسلام لما سنيو سنجوبا مو مسل ديجل نيت مو musiba ndax bu bu dara xewé ab yalla yonente sallallahu salaa wasallam ad du'a silahul mumin mhm. ab julit ñaan la am delu ci yàlla toroxlu ci borom ndax yalla li wax leer na fa isa sagala ibali fa ani xaribun ujibu daawata da'i isa daani ma ngi ni jégena leen man yalla kuma ñaan dana la may ab jam sañ na ñaan sañ na watandiku yit ndax dañu digle watandiku mhm. watandiku mais sababu yalla kenn mënu ko daw mais mhm. nga moytandiku donc olof njaay lay wax ne dogal bu ne tànk nga fa parce que bu ne na nga def lii nga ne duma ma ko def ñu ne nañ wax lii nga ne du ko wax mel na ni lu mën a doon bu ko nit ñee daw yow yaa yóotu loolu pour mu jëm si ci yow loolooy tax muy sëñ Tuba moom fii la nekk ci ñaan nit boo demee wan si sifa ko makkaana day waxtu wu ne mi ngi koy ñaan yow yàlla nanga nga wàccee saafara ci béréb bi lor yi ñaata tegtal yoo xam ne kenn xamul lu mu toll ñaata xasaayit yoo xam ne sëñ Tuubaa def na ko tawasul diggante mag boroomam ñaan bu balaa amee bu musiba amee bu jafe-jafe amee nit ñi ñaan dellu seen borom pour mën a. tey dañuy gis sax yenn xasida yi comme Matlabul Chifaay nee nañu tamit lu bari loo xamante ni lay euh, ay ñaan yu sëñ bi bindoon nga xam ne tey jii ku ko jëfandikoo tamit am na lu bëri loo xam ne mën na la ko indil ci sa wàllum wér gu yaram. waaw xam nga gëm-gëm mooy mooy affaire bi soxna nit day am gëm-gëm am gëm sëñ Touba lu muy ñaan boroomam daf ko ñaan ba yàlla defal ko sëñ Touba du n'importe qui. Mhm. sëñ Touba du caaxaan. sëñ Touba du caaxaan. lu muy dafay dafay déyaale ak boroomam. daawtu rabbi wa duaa yujib damay ñaan yàlla ba yàlla may ma. Mhm. te sëñ Touba bu nee la ñaan na yàlla ba yàlla may ko war nga xam ne yàlla may na ko. Mhm. te bu nee mën naa ñaan lu aar nit muccal ko war nga gëm ne mën na aar nit muccal ko. parce que sëñ Touba da nga xam. mu jaxasoo ak ay nonam ñu am katan ami pexe diko jëme ci moom guddi ak suba ngon mu mucc waye gis nga buy dellu muhammadul munji ji man qadimahu da koy delloo ci rasulullah wax ne waxtu wu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy muccel muccal ki koy liggéeyal nga xamne ne it ximal xafidi maani yugni an il madafii li kulli abdin xaashi yatlub xayru araami sëñ bi dana wax ne kaaraangeeg yàlla moo gën ay fetal kaaraangeeg fetal ak i kënu ci bépp jàmm ragal boroomam sëñ Tuubaa dafa def ay xassay bayiko fi def ko ñaan ci digeentem ak boromam ba yalla nungul ko ay ñaanam ab julit bu jaxlé ab talibé bu jaxlé na japp ba sel jublu penk julli ñaar rakaam ubbi xassida gi mën jang ñaan def tawassul ci barke ndax sëñ bi day def tawassul manam day ñaan sëñ Tuubaa bo demé ci tuhfatu toxfatu ha ah wa wasalla abada ala lasi bihi lana badahula سيدنا مولانا عليه وسلم هذا ونيابه soo tawasul bi asmaa sa wa tafaddul fa qultu yaa xarib yaa mujib sali anas bi tujib sëñ Tuubaa day def tawasul maanaam ñaan yàlla ci barkeb Seydina Aboubacrine Seydina ñaan ci ñoom ci seen barke def tawasul te sëñ Tuubaa yàgg na ci yàlla ci yàlla goo xam ne jàmm bi mu ngi mën na ñaan yàlla borom subhanahu wa taala def tawasul ci wasilaam maa ngi ñaan yàlla mais ci barke Cheikh Amadou Bamba parce que Cheikh Amadou Bamba moo la gën a jege yàlla Cheikh Amadou Bamba moom la yàlla gën a gërëm Cheikh Amadou Bamba xam yàlla ruusee Cheikh Amadou Bamba ci yow nangu la sa ñaan boo gëmee loolu boo ñaanee yàlla yàlla nangu loolu parce que sëñ Touba sens bu rëy la ci biir biir adduna mais sens bu rëy la ci biir biir Sénégal oh, xam nga rajab dafa bokk ci asurul xorom weer yi nga xam ne dañ leen a wormaal lañ daan tere sax di ci di ci di ci di ci xeex mhm. mooy weer bi nga xam ne it ci lañ wàccee julli weer yu ñu wàccee julli mooy weer yu ñu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom daf ko fonk moo ko gënal ci ñim bind ñëpp ba ku topp yonent bi rek topp nga yàlla li sëñ Tuubaa di wax ne muhammadun afdalu xalqi la mutiahu wa mutiahu la wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki gën ci nit ñi ku ko topp yaa ngi topp yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa dafa feñ ci ak tumuranke ak ciona ak lune yàlla yónni ko xat-xat yu ne mu mu ak mom gaday dem habasha dem taif sànni lañ koy doj wala kooki non lune dal na sallallahu alaihi wasallam ba sunu borom yéegee ko lii wér wi ci la li ñuy tudde al israau wal mi'raj khayrun al israau moy doxu suuf bi al mi'raj moy moy yéeg bi mu jóge baytillahi al xaraam ci Makka ñëw baytul maqdis ci Jérusalem sun borom yéege ko ci guddi googu su ma danaa fata dalla fa kaana gaaba xawsayni aw adna fa awxa ila abudihi ma awxa invitation boobu kooku rek ko masaam rasulullahi sëñ Tuubaa na qad baata yasri min baadi tuhri mudimal bishri guddi la jóg moom sallallahu alayhi wa sallam waaye bi mi dem borom xam-xam yi wute nañu ci de ñi nee dafa dem ci ndax gént la wala nangam sëñ Tuubaa ne qad hasa fakhra min hina asra bil jism jahra sëñ Tuubaa ne na jëmmi rasulullahi mo dem mom la yàlla invité mo dem wujjil bopam mom dajeeg ak da de a jité la anta imam rusul khad jaa annahum talaqaw fi l asraai wal kullu xad salla labista siyab al majidi wal fadli wal ula wa fika min al akhlaq ma ajaza al kulla loolu señ di wax rasulullahi ya jité yonent yëpp yow ci yow lañ jàng teggi ni topp yàlla sallallahu alayhi wa sallam yàlla jox ko kado bu rëy bii di julli nga xam ne mooy kennul diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko taxawal taxawal nga diine ku ko mabb mabb nga diine moom julli yàlla jox ko rasulullah muy kazu kazu lim la mooy vingt-sept keef kaaf gi vingt la racine gi sept muy vingt-sept mooy kazu du këstu kazura kazu mooy 27. du këstu waaw ah, du këstu kazu boo ko sàddaa yi def kazu rajab du këstu rago du këstu ragaj kazu rajab muy vingt-septième jour ni ko sëñ Muntaxa waxee nun nag nu am ci xaas ndax sëñ Tuubaa dafa am soxna awa lu yéeme lu ko suñ borom defal mooy bunt yu baax yëpp yàlla la ko caa defal barke بوليمة تي غامو نون لا تي ام بوليمة تي محرم لول لا تي ام داخ بو ويرو محرم تيرو موم لا نيو تي تام خريط خشيد غوم بيند جوروم بن وير ييب دي تي رسول الله ما دحت خير الخلق من المحرم الى انتصاف العام ستكرم بو وير وي تيوي نك له صلاتي وسلامي من رجب تي خدمه سي الحجه اللي نعمل منتجب بوليمة تي كوري نون لا تي مل بوليمة تي وير وو نك نون لا تي مل weer wiit yàlla defal ko ci tawfiq jure nga xamné ne wenn saan la wuy jam yar boko magalé da nga ci am yoolub yéege gi yàlla yéege rasulullah invité ko te yonent bi moy ki gëna fort waye da nga ci am nak gane jamono cheikh Mouhamadul Fadal Serigne Fadilu di ñaaré lu leeru cheikhul khadim di ñaaré lu khalifa ci guddi gu màgg googu la feeñ daana wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam dana lay mën a cëpp ci wases di 1306 1888 ci la ci sëñ lu feeñ dëkk bi ñuy wax Daaru Salaam Daaru Salaam mooy dëkk bi sëñ Tuubaa jëkk a moom moomal ko boppam ñaan ca boroomam lu rëy tërbiye fa aw nit defar leen ca jaayante ñoom fa la Cheikh Ibrahima Fall jëkk amee ngërëm fa la Cheikh Moustapha feeñe foofu ci la sëñ lu feeñe ci weer wii ñu nekk muy alaaji Mouhamadul Fadil ñu tudde ko rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko tudde moom Sëriñ Fadilu muy fadlu fadlullaahi nak aw turam wuy jeufam ndax yàlla dako tanal way juru sel muy Cheikhul khadim wa tanal ko way juru tel muy soxna abou Buso lako tag kat ba doon la laqad tanashata min shamsin wa min qamarin fa sirta baxra min al anwar tasdaxiru da nga soso ci diggante jant ak wer jant bi moy khadim rasul wer moy mooy soxna Awa Buso waaye yaay geñ bambulan yow serigne Fallu nako nak lolou serigne la ko wax allahu sul al azim ku mu jox ngëneel défilé yéem fadilu mooy fadlul xamim turam wa doy na xarnu bi mooy doomi shamsul wa xamar nakk bu soo bi duñ ko jar moo namp yaari weeni ngor mooy bambatee ci xarnu bi nga xam ne sëñ Fallu moomu mooy ka waykat bi wax ne yabdul xadimi la si yu doxa bi fadilina maanaa la fadlu ko la unza wala dakaru sëñ Tuubaa am na ngëneel yooyu sëñ Fallu am na ngëneel yooyu góor amu ko jigéen amu ko sëñ Fallu rek ko am daan na ko sabaxta jiire ko fi ilmin wa fi adabin wa fi fadail lam tusal biha fikaru jiitu nga say kem say maas ci xam-xam jiitu lañ ciy teggin say ngëneel kenn mënu koo jot moo tax ñu koy wax fallu lay xaritu yàlla la mu jubóog boromam ba ñaanee yàlla mu am lu yàlla na am mu am loolu defe naa xanaa jàng na ci xadiisu xursi yonent bi lu mu wax sama jaam du dañ ci dima jege-jegelu ci ay nawafil ak ay daawaat ba ma nekk noppam mi muy déggee nekk làmmiñam yi may nekk gëtam yi may xoole sëñ Fallou dafa topp boromam di wéetal yàlla subhaanahu wa taala ba juboo ak boroomam yàlla may ko bu ñaanee yàlla mu am bu nee na suñ boroom na am suñ borom defal ko mu am ndax dafa ah. jubóog moom loolu jëf jëfama ko ko may ci hmm. digganteem ak boromam ndax suñ borom moo jëkk ne ku ragal yàlla te sa ragal yàlla wér hmm. maa lay sàkkal solution ku ragal yàlla te sa ragal yàlla wér maa yow noo ànd hmm. sëñ Fallu gën a ragal ñëpp yàlla gën a jub ñëpp gën a sàmm ñëpp yàlla may ko mu jubóog boromam mu nekk koo xam ne it Abdul Xadim la si mahalla saatuhu aatin yuraajihi illa salla faaxatuhu sëñ Fallu kenn mës sa wàcc ab ëttam di am yaakaar te sa yaakaar fa jugut du xotti feetir du tas yaakaar du daw ku ko laaj ku laaj mu jox la nga giijal fallu xa diyu la mësta tas yaakaar yi kenn moom Cheikh Amadou Fadal moo tax sëñ fallu am loo xam ne kenn amu ko da ngay dégg njaagub sëñ fallu tiijaanub sëñ fallu naarub sëñ fallu lu nay sëñ fallu danga koy dégg jikko ju rafet ko ko mayoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne alxalqu ayaalullah ahabuhum ilayhi anfaahum mbindee fi ñoo njabootu yàlla ku leen ci gënal mooy ki gën a jariñ mbindeef sëñ Fallou jariñ na mbindeef balaa bu ne wàcc na ci réew mi sëñ Fallou ñaan mu dem mas bu ne wàcc na ci réew mi mu ñaan mu dem bekkoor bu ne wàcc na fu mu dem sëñ Fallou ñaan mu dem loolu ña ko xam xam nañ ko ña ko dund dund nañ ko ña ko fekke fekke xam nañ ko yàlla dafa am ay xejjam te xam nga lan moo gën a dansé soxna wa mooy noonu wali yu yàlla man aadani waliyan faqad adantuhu bil harb yonent bee ko wax nee na yàlla nee na ku noonu sama wali yu déclaré naa la guerre gis nga bëgg nitu yàlla moo gën a màgg ci gépp jaamu yàlla mm-hmm. loolu alkurmaani yi waxoon na ma taabada mutaabidun باكثر من تحبب الى اولياء تعالى لان محبه اولياء تعالى دليل على محبه الله عز وجل مانام بغ نيتو يالا دي تكتل سي بغ يالا ان محبه اولياء غير كنز من من كنوز لا اذ لا يحبهم الا من اراد الله ان يفوز غاي يو باخي بغ لا ندم لا تريزور لا كو يالا نمول غا تخي دو تابل سخول غا بغ غاي يالا يالا اب خديم داكو سور الا ان لا لا خوف عليه ولا هم يحزنون يالا موم اي خديم اي غايم دو نيو جاك دو نيو تيت نيو ني خريت يالا نيو لا تان سيرن فالو ليكو وار ليب داكو ديف ab jullit la seere na seere yi woor na def na ko julli na aj na makka farata yi yi ñu tabaxee l'islam bu nuyeel l'islam ala xam si shahadatu an la ilaha illallah wa iqamu salat wa itaau zakat wa sawm ramadan wa hajj bayt baytillahi al juro juróomi ponk yi tax nit matale sëñ Fallu matale na yoyep ba nopi taxawé taxaway bo xamné ne ñëpp yërmande mom Sëriñ Fallu taxawu ñëpp mom Sëriñ Fallu kum mën doon sëñ Fallu yir la réew mi amul xaj amul sen sëñ Fallu moo xam boo demee ci ñu doonutu jullit xamoon nañ kuy sëñ Fallu digganteem ak Senghor doyoon na ci misaal mhm. ñi nekk ci jullit uma islam bi yëpp demal ca Tijaan yi demal ci Xaadir yi ci Laayeen yi kenn ku ne xamoon na kan mooy Cheikh Mamadou Fadal mhm. waxuma jubóog am gi waxuma ñaan mu am gi waaye makaarimul axlaaq gi nekkoon ci moom imaamu Junayd dafa waxoon ne arbaun turfaul abdu walaw qalla ilmuhu wa amalu mhm. ñeenti meloo ngi nii comme daje ci yow doon ko ne da ngaa dana la yëkkati mooy alxilm asaxa tawaado usnul xulq lewet toroxlu tabe rafet jikko Serigne fallu ken jitu ko ci lewet mo xajoo won ñep fu ne la way di bayiko daw jëm ci kaw so waye mo sodio won toroxlu don domi Serigne Touba don khalifa Serigne Touba jubo ak boromam di faddalu leehi bu ñaané yàlla def mu wàcce bopam di def toroxlu jëm ci boromam subhanahu wa taala bu ne tawhid ken jitu ko ci li gayrika la nashku ilahi lwara amra wa ma in lana ila ilayka dahra walatna naqaafu durra min siwaka la kasalika la narju siwa yusrikum yusra loolu Serigne Fallou ko wax dana yow yàlla nun jàmbat dun jàmbat nun menn mbir ku dul yow yàlla yow rek lañuy jàmbat duñu yaakaar kenn ku dul yow yàlla bu jafe-jafe amee ci yow la ñuy dellu si waat yàlla nit ñi fi ñëw di delluwaat parce que jaamu yàlla bi wéetal yàlla xam yàlla tawxiidam lay mel kenn du ko jam ci bokkaale boromam subhaanahu wa taala wéetal yàlla tabax jumaa ci réew mi jumaa ju toll nit ñëpp tekki seen i bët ñaata nit la sëñ Fallu yóbbu mag ñaata nit la sëñ Fallu fayal bor ñaata wata la sëñ Fallu maye ci réew mi ñaata ñaata la seigne Fallu dimbale te bi fi bayiko 400000 la fi bayi ci zahir ay doomam am na ñu da na leen xol leen juma ji moy seen wal ñen ñi mbubb lañ doon ñen ñi gamel lañ doon dajale wul alal yàlla la doon won nit ñom seigne Fallu motax mu jubo borom motax ben way ka neel ko man waddahu udda min al akhyar wa man jafaahu udda bil aghyar sa yo yoo seigne sëñ Fallu bokk nga ci tanne fi bok ci gaay yu baxé yi ku ko nonu bok ci ñu alkande seigne sëriñ Fallu amul moroom seigne Musaa Ka neena na allahu sul fadlul azim ku mu jox nga neel déefile yéem فاضل موي فضل الحميم تورو مو دينا خرندوبي موي دومي شمس وقمر مكي بو سوبي دون كو جار مو نامب ياري وين غور موي بامبا تي خرندوبي سيرن فالو راو تي ريومي سيرن فالو امول مروب سيرن فالو غنيل اك تاد غام بو ديغي ني تودو كون ام امك نتاو مو تاو كين مونو كو ديني لولو دي سوكو ديسكوتي دي سوكو واخ دي سوكو ويدي ناخ نيت كي لام خامول خاموكو خمغا ادنا لان موتي غنا ييمي سخناوا لولي ييك ñaanal kay yëgle yëgal la ko boo ko yëgul nit ki lu mu yëgul yëgu ko mais bu mu ne amut loo xamut sañ nga ne xawma ko loo amut sañ nga ne mais loo amut bul ne amut loo xamut bul ne amut neel xawuma ko neen awma ko loo mënut neen mënuma ko waaye bàyyee ko ko ko man ak ko ko am ak ko ko xam loolu mooy li mer Cheikh Mahamadul Fadal nga lem dafa yaatu Cheikh Mahamadul Lamine Baara doomi Serigne Touba la da koo tagg na ko jikko ju rafet ji nga am arab yi amuñu ko enjam yi amuñu ko ñi doon arab amuñu ko yow Serigne fallu sey nga leen amul misal na sa baye nga nuru Serigne Touba mo nekkon kashiful kuram bu njàqare ma saam sa baye daan dak njàqare la mu dem yow ya donu so baye yow Serigne fallu bak ñaata bala serigne Touba mom bu de lu serigne Moussa wax bu natt joga ba jëm ci njabotam mu Nyata dëroo roko ngir gëm borom ñaata bala ño daan wacc jëm si ci jubo ñi serigne Touba dekk ko lolu Serigne fallu daf ko donu jubo ak boromam ba doxal Serigne fallu don borom nga yu yaatu don ko xamne dafa jaay njuréelam gi mu jul gi mu am jënde ko ak taalibe ak Serigne Touba Serigne li ñuy jariñoo ci moom mooy ak taalibe mooy pas-pas mooy gëm-gëm mooy am volonté bu dëgër sa diggante ak Serigne Touba Serigne Touba ay tatone ak i këlkin ak i xalaat jëliñu ci nit Serigne Touba du lu ñuy këlkin gëm-gëm la maanaam Serigne Touba gëm-gëm la بودو تورول سيغن فالو دو جير نجوريل غي جاي كو يا ايو شيخ نفيس المرتجى يا فاتحا ما كان قبل مرتجى بعت بنوتي بالارادة لكم لكي احظى بخلق عاده وبعد ما اشتريتموها مني فين اهديتها لكم بغير من يا يوم سانغ بو غانجير بو ريس بي بو فور بي بو ياتو بي من محمد الفاضل نجوريل غي ما جور ماكو جاي جند كو تيو تالي بي بوكو جند با نوبي ما موم نجيت غي نما دوم جوخات نالاكو ادي ياو شيخ القديم لولو لا شيخ محمد الفاضل ديف جاي نجوريلم ديغنتي سيرين توبا am taxawaay bu rëy boo xam ne am na ko ci melo wu nekk doxin wu rëy wu nekk daje ci Serigne Fadilou Mbacké ba yàlla tey jii may ko dara ju rëy joo xam ne bu ne Serigne Fallou ñëpp ko tudd ko am na ñoo xam ne bu ñu xamoon boo leen laajoon tey lan mooy Kazu Rajab xamuñu li Kazu Rajab mais lañ leen xam mooy màggalu Serigne Fallou mm. parce que yàllaa ko may Serigne Fallou da gis nit ku dem jàngi bitim réew ñu bi ñu ne tubaab la mais doo tubaab la gaag jeex ci boromam ومن قلوني في البرايا خجلا سن توبا دنا برك بالاسلام دغمل نما تكوما بان من سن توبا دا نغا ام مي الاسلام دغمل نما بان دك نغا خام بوم تيمير جمعة اك نيار فوك بان دك نغا خام بوم تيمير جمعة اك نيار فوك توبا امنا تيمير جمعة اك نيار فوك جولي لا جمعة تاي 120 جمعة مو ام توبا ñaar fukki téeméeri juma ak ñaar fukk moo am Touba ñetti juma néew fa juróom benn jumaa néew fa téeméeri juma ak ñaar fukk moo am Touba ban dëkk moo am téeméeri juma ak ñaar fukk kum gërëm ku ne defaral la moom Serigne Touba boo séenee dëkkam juma ngay jëkk seen daaray alxuraan la ca nekk te benn aide extérieure du ca bàyyi ko ñaq murid lay doon boole bi xidmatin aw bi xobbin aw hadiyat comité la boo xam ne mosunoo tallal loxo kenn demal masalikul jinaan vingt milliards barki démb lañ ko ubbi adduna bépp teg seen bët jumaa ju toll ne moom jubu foo ko xam gu ko nuru jumaay Touba ñaata milliards joo ko xam junu nuru junu mel université 37 milliards joo ci xam dunu nuru te kenn mënul ne la mosunoo ubbi benn immigré benn jumaa nga dégg ñu ne ñoo ngi sant benn réew du benn réew golf bu ñu sant du kenn ku nu gërëm ñaar dërëmi murid yi juróomi dërëmi murid yi fukki dërëmi murid yi tënku gi ñu tënk nag murid yi boole am xam-xam boole ami teggin boole amu fit ndax seen sëriñ nañ bàyyi xel ne soxna si awa nañ bàyyi xel ne hadamtuma banaahu kullu man jahat min al fira bi qul huwa allahu ahad 1895 bi fen nekkee ci réew mi ak tappale ak weddi yàlla ak ruuxale ak ragal nasaraan bi ñii ñu dàq leen ñii ñu rey leen ñii nag mi kenn waxul bañ convoqué ca 5 septembre ca Ndar mag 7 septembre amul 6 septembre amul 8 septembre amul 5 septembre rek a am. jenn jëmm lañ fa convoqué ak ak i morom ak i nawleem mu sànni bi daram kàbbar 45 minutes la diire moom si Amadou Bam. wax ne hadamtu bil ilahi bu njëtal fira wala ulaaxi abadan man kafara te boobu mennum Serigne Touba la woon jàmmaarloog noonu yu bon yu am kattan yu bari pexe yu mën a lor mu jàmmaarloog ñoom. ñu génne ko ci réewam sama ni yaxi jajin juróom-ñetti at yoo xam ne nii gisul doom gisul taalibe gisul mbokk kenn gungewu ko àndul ak kenn yàlla jaral ko gëstul ci histoire it mosoo gis ku sànni garam kàbbar ci géej mën a la julli julli ciy doj julli ci xur julli ciy montagne mais kàbbar ci douche delluwaat ca gaal ga ahmadou kepp wa fil yemmi sallal asri yajri bi jildihi ma al fulki yabdu raakat xayla sajum te ba ko yàlla fayee lam ko fay dana waa réew mi nañ ko bokk ba muy liggéey natt bi ko tubaab bi mu ñu nat natt ci gabon keroog dañ ko takk ci garab ca montagne sainte jël fukki soldaar ak ñett tiiree koy bal fetal yu bal yu au lieu mu dem ci sëñ Tuubaa dëpp dem ci ñoom ba ko yàlla ne loo bëgg dana ko moo ci réew ma nay ñaa naa ci am ñett da doon taxe ku yaakaar rasulullah te nekk ci réew ma mu yowmal xiyaamatu akbar na ñëpp mujj dem àjjana ijar ruju'i ila qawmi saadatana wal takfina yawma jamal xalqi nirana kii concurrencé wul soxna Awa kii ñëw fi di di wut ay place xëccoo mbooloo tax koo bi muy daataan dem teelif nay téere seexal naw nit am nay dëkk néegul ba jamono soppi ko tey mu wut propagande ko xat-xat loo ak kum yilif sëñ Tuubaa ruu yàllaa ko ko jox si maamul wara asri la dallaahi fi yadi wa ma rumtuhu min malikin qaadibil an yi sëñ Tuubaa daal liggéey ba am gis nga adduna boo dee liggéey da ngay jàng ñu naan la elaw ngay jàng ba yàgg ñu naan diw nangam ba ñaan professeur bu mu ñu naan directeur bu mu ñaan nangam noonu ñu lay nomee ngay yéeg sa jëfa ko eggale ci yàlla sëñ Tuubaa sël mooy nit ku ñuul ku tudd xaadimu rasulullahi doo gis benn bindkat bind xaadimu rasul sëñ Tuba kep ko mulkul baqi al qadim jaalani asnal qadim yalla moma def may le mer serviteur di prophète Muhammad seetal bindikat yépp ustaas yi ay kat ngeen borom xam-xam ngeen na nit ñi di wax te yàlla tax te baña par parlo te baña andi xol bu neexul sëñ Tuba ni mel yalla ko ni def ca sahaba yi ya ngay tambale ba ila yawmina hadha sun bisub tey ku bind lu toll li sëñ Tuba bind amu ku ko bindee fam ko bindee amu ku ko bindee nim ko bindee amu تبين من منسجة كرسي فيرجل كتبت وكل فارق ذنب الشرقاء وخمستر رب الذي بيعته تركا بن عرف منسجة كرسي من الشامة دبام رب ما اي قرد اكي يول اكي نوكي سم اكي متت مي خيف تدو لك بغا نان تدو نان موغي كم يولي لكو ام تنو تيخلي مغي داو تنين لن ما تك لن ديس ديس مسا بيخلي مغي دي بند بيك جمي بيك لو رسول الله فاتنا ما لما دخان ميدا قدا حاجي لقدمتي من تبشيره درر الاعداء انسانا ñaata tonn la sëñ Tuubaa bind ku lu bind lu toll noonu amul doom jum am rasulullahi la ko tuddee jël boppam jox alayhi salaatu salaam juttu lahul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fil alam saa bopp saa doom saa alal lépp rasulullahi mahat mahabatal muxtaar sayyidina hubbil maganiya wal ahli walala dami wa ahli wa awlaadi fida lahu abdal qadima lahu muskaan li sanada yow football kat yi xam nga leen dégg naa ñu lay wax yaa ci football yi bit kenn koy dugal. agomis dëgg la. dix ñaata joueurs ñooy classé. onze onze duñ dugalandoo. waaw dëgg la kenn rek kay dugal. kenn lay dugal te passe bu rafet taxut a gagné. waaw dëgg la. passe bu rafet. taxut a gagné. dëgg bit kenn na koy dugal. dëgg la nan d' accord ne mat si am na. Mhm. paasante yi rafet na. lu ne am na. mais a maire Cheikh Amadou Bamba. <laughs> le maire Cheikh Amadou Bamba. passe bu rafet taxul a gagné sëñ Touba gagné. سبقت جميع الاولياء بلا مرا وارضيت دين الله في العصر والاسر يا جيت اولياء لا يب تامل بن ورانتي نتكو بار بيس بار بيس بودي بغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خول نيم ديف يونتي بي بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفدة وخيالا تاغ كو تخ ما فاتي دوم فاتي علال فاتي ورس فاتي لب bu ma àndoon ak ñuy dox ba yàgg ma seen ko mu ne jëyi tànk bëgg ko teg ci dégg sëñ Tuubaa ne ko dandal bu ko jéeg bëggee fet du ma ko dandal xaddil wiqaayatu rijji li bu jute ba min shawkati maa yu dafa aqraba bu ne jëyi tànk ba rek sama lex bi lay gaaw dëpp ca ca dégg rasulullahi jóge ca beneen ana ko egg ci boobu dimension ci rasulullahi ana ko am boobu dimension ci rasulullahi ana ko jaxasoog ñu say noonu dem toppal parcours suñ demal Nantes demal Bordeaux demal fu la neex ci àdduna tubaab yëpp nañ maasa jóg mënuñoo gàkkal sëñ Tuubaa borom perkal bu weex bi amul taas salim min al afat jumlatiha wa ma nifaqa bi ma ma zaja kel mën ta dakal seigne Touba ba combat mom dong ba dem mom dong ba genn fi 10 août 1895 di fukki fan ak juróom ci safar ñepp la fi ba tak naaru góor a ma wane ginnaaw na ma ngi dem liggéey rasulullah bayyi sama kër bayyi sama njabot yalla fay ko lu rëy li ñi football sax bu kenn gagné dañ naan médaille d'or bi mam Sénégal ko mo diplomate Sénégal mo avancé nangam lu xew mais c'est pourquoi seigne Touba ni mu mel yalla def ko ni der ko muy sénégalais yàlla may na ko mu nekk Afrique ab naar melut ni sëñ Touba amul arab bu mel ni sëñ Touba amul kenn ku mel ni Cheikh Ahmadou Balba bi misli cheikhi lam nasma hadisa wala fi sali fi dari qadimi waxoon naa ko oustaz Pam Pap an maa ngi koy waxaat oustaz mii gëstukat nga histoire jàng nga ko xool nga fu ne sa nopp bii ku mel ni sëñ Touba mosoo ko ca dégg ku waxte yàlla tax la Abdourahman al Azani waxoon ne ألا يا عباد الله قوموا لتشهدوا ولا تكتموا ما تعلمون فتعتدوا سألتكم بالله من ذا رأيتم على الأرض مثل شيء يركع يسجد فإن قلتم ما من ذا نهروا فمن سقوا مغرور ولا تفندوا ما غير اللي لاجنين الوقت يلا تخ كنا نبغى دق بكون نبغى نخ مسنين جسكم اللي سنجوا سيره القديم أم مرام يلا نكون ما ينوم سنجوا لسنا بيجا خدم كي يلا ما نكون ما كي يلا ما نكون يد ما يلا كيف هو جلي لولا نجوا دكور لولا كم ما ينك لنيوم غنيلم فنجا فضل الله 1895 nañu bàyyi xel jàngkat ngeen ay gëstukat ngeen war ngeen ci réew mi te sëñ Tuubaa mësta not bakkan mësta wax képp dandul ma dëkk mësta nungu këri kenn mësta nungu alalu kenn mësta moggatu kenn li ko yàlla jox da koo séddale moo tax seex yi bari mësta xuree sëñ Tuubaa amul paak amul jësi yorul fetal yorul tu fit yorul aw yat bu gëstul ci ba demal bayti moo la gën a jege daaru xuluus demal njéeréem nee naa la léegi demal nant ba Bordeaux wër sëñ Touba doo dégg ñu ne jeex si sëñ Touba jangi, fettu sëñ Touba jàngi fetalu sëñ Touba gën amut aslaha zahiri wa batini maa man lil ada bila silahin qamaa yàlla defar na sama bitti defar sama biir ba mu jag ma not samay noon man sëñ Touba te man aw ma benn gànnaay bu ma jëfandikoo ba leeral yoonu lislaam ba mu leer nañ kenn du lu jam ca lislaam alxaafidu bil ati sawda fi abadin wa rafi sunnatil bayda bil himami ba Islam di jar bakkan ku julli dee sëñ Tuubaa dafa julli mm. ba lislaam di jar bakkanam ku taxaw dee sëñ Tuubaa dafa taxaw ba muy dem moom dong nga dem te woowuñu ko woon moom dong it te moom dong it nekk fi woon mel noonu sëñ Tuubaa képp nekkutoon ci réew mbooloo la fi nekkaloon yàlla may mu am darajey sañ sañu dem liggéey li boromam ba dellu siwaat loolu nag la ko yàlla faye pay yu bari yi gis nga ilay yaqaadallaahu maa lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini sëñ Fallu doy na ci yàlla may na ma lu kenn mës la am te kenn dutu ko am jëlal alaaji Fallu Mbakke ku mel ni sëñ Fallu ku melni seigne sëñ Fallu amul melaw ko yalla jaglel dara ji juri ji ko yalla jox sañ-sañ bu mag bi mu am gi gim jubo boromam lim jariñ rew mi lo mas sa gis ñu taxawal ko l'islam ci rew mi seigne Fallu def na ci jubo ak ñun ñep jubo ak ñun tarixa bi yep bo demé biir kërëm mboolem ku mbokal seigne touba dang fay fekk trono mom seigne Fallu bo demé biir kërëm mag ñi ak fay fekk trono l'islam bi ñëpp ëmbal sëñ Fallu melokaan ndax dafa xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne laa yuminu ahadukum ata yuhibu li aqihi maa yuhibu li nafsi gis nga problème bi am xam ban problème lañ am mooy tuddoo ay jullit te bi nee na mhm. ab gëm du mat mukk te li nga bëggal sa bopp bëggaloo ko sa mbokk mhm. bëgg na ca kaw rek bëgg yow rek yaay wax yow rek yaay tedd yow rek yaay deggu sa julit sa mbokum julit bala nga contant sa mbokum julit nek ci jafé jafé bala nga contant sa mbokum julit torox mhm. bala nga contant sa mbokum julit ñak lim yoron mhm. do ab julit sallallahu Alaihi Wasallam moko wax señ Tuubaa na xola buy ñaan limi wax mhm. ya malikal mulk ya man jalla an qawadin irham jami al wara xoola mbodi kanya yi mbott yi ñepp ci la bok lu yor no di noy rek señ dafa ñaan yalla nga yeeram ko lolo la señ Fallu doon dundé xajoo ñëpp mësa xoolal sëñ Fallu sa génn kenn mësa bedd kenn la ma lay ne am na bis daa am ko ñëw soxnaam toll ab diggante mu ñëw na sañ Fallu sama soxna daa tollu diggante sëñ Fallu jox ko xaalis mu demaat ñëw na ko yeewee ko yow laa ko tudde sëñ Fallu jox ko xaalis mu demaat ñëw na ko Fallu lay nuyu Fallu mu ndaw sëñ Fallu jox ko xaalis uh-huh. mu génn naa dajeeg beneen xale ñëw na ko Fallu nuyu xale bi nag tudd ma Fallu sëñ Fallu na ko Fallu léegi léegi rek Fallu léegi léegi du toroxal kenn mom Serigne Fall am kilifa goog Serigne Fall dana ko gane sama ma ko man damay ganuk sën da dama bari tak tak Serigne Fall nako may ëttub geej bo ñewé lu dis dig lo def na tong ci kaw bu ñewé nako tonet xajo won ñep mom aladi fall lu mak da na xey jël dépense joxé ko Touba na ñi ñew ci dëkk bi te amuñu dépense mbolo mi la amuñu mbolo mu leen di liggéeyal doonu ñuy cheikh man mi ma leen wara yor ma fall lu mak jël dépense di leen ko joxal mom Serigne lu mak jumaa ji bi mu koy taxawu xoolal ni mu ko taxawee taxawal ko Cheikh Moustapha magam ju baax ja tàmbali ko bokk yi benn dëkk boo xam buñ xëccub raay ngir tabax jumaa amul benn dëkk boo xam ne dañ ne jël nañ cinquante kilomètres wala quarante sept kilomètres néewuñu ab usine lañ fay def néewuñu ne mais néegub yàlla moo jumaay Tuubaa du ay caaxaan néegub yàllaa tax Cheikh Moustapha jëlee raay bi njéeréem ak condition yen ko ca teg yépp indi ko Tuubaa defuñu ko yoon wax ma nga ne ana raay ba fi ne daanaka amatu nekk defuñu ko woon pour commerce defuñu ko ni bëggu yoon néegub yàlla lañ doon tabax investissement yi gën ci yoonu murit ay jumaa laa ki jàkk boo fa jógee jumaa jaa gën a seer benn murit bu mën a am lu toll ni jumaa ji boo dugg see ci ndakaaru gi jumaa jee ci gën a seer ci ñoom si kërug murit gu doon 4 milliards amul te ay 20 milliards la ñuy dëkk nga def ko ngir jëmmi yàlla bari na koy tuddoo l'islam maar mu yegg mënu ko defal l'islam bari na kuy tuddoo l'islam tey la muy am l'islam ba di ko taxawal dañ ko koo financé waaye mënu koo taxawal mais amul benn yoon tey jii l'islam tey jii boo ñëwoon di génne murit ñaata milliards lañ def ci l'islam l'islam jaral leen ko lan la leen alxuraanul karim jale lan la leen yàlla jaral taxawaay boobu ñu taxawal diine looloo tax tey boo nee sëñ fallu adduna bépp mën a maase bëgg sëriñ fallu ñu fi nekkoon jiitu réew ana Senghor xam na kuy Cheikh Mamadou Fall te Senghor da woon mais am na gis yàlla may na ko yàlla day maye mayon ci ngor mu am lu bari lu xam bam mu ñëwee seet si sëñ Fallu bay dem nako mbacké dama joom am lu ma fatte sëñ Fallu nako lu ma mu nako dama ne ci yoon wo xam dafa bari ay pak bari ay galankor mu nako ko naa la maaseleel yoon do gis ben pak pak suulal la pax yi dara du la fakkasal da ngay fallu te do kenn dula ray manam kenn dula coup d'état te kenn dula la ci ngor kenn coup d'état wu ko su ngor kenn gañewu ko mo tok ba doyal sëñ Fallu ne ko tamit nag na la jak te jàkk muy néew muy xam bo xamne bam bàyyi guiné aduna sax dañ ko ne jak diko xol moom Senghor te lenn ko ko may képp mooy participer ci liggéey bu sëñ Fallu di liggéey sëñ Tuubaa mooy jumaa ji gis nga sëñ gis nga murit amul lenn loo ko mën a xëcce mënoo koo convaincre lenn lu dul sëñ Tuubaa tey jii bu nu sëñ Muntaxa ne woon dee leen ci guddi gi la ñuy dee looloo mën a rey da ko def loo mën a naan ak kari wataak lépp da ko def nun ndigal ci lañ tënku benn baata nu yor benn baatanu moom xoola sëñ aboo li muy réy daraja lay sukku boof sëñ siidi day sukku boof fan nga gis lu mel noonu mas ngaa gis benn sëtub sëñ Tuubaa bu toogoon ak sëñ mu taxaa ci kaw baa mu dugg ci biir saal bi mu nekk sol mbaxana baa dugg ci bi mu nekk yoru dal danoo jaayante nun suñuy bakkan lañ jaayante xam nga sëñ Tuubaa daa jaayanteeg Rasuulullaahi bakkanam nun ñii dañoo jaayanteeg sëñ Tuubaa jox ko suñu bopp adduna ak àlla tam jalal nu nag moo tax sëriñ Fallu leeral nañu ba tey ne sëñ Bàmba mii nun dong ko motax yalla may ko li ñepp a koy tudd fi ne da nga gis ko xamne doonut mourid seigne fall lay tudd gis ko xamne ne lay nekk lay tudd yalla ko may jagle gogum maam mu lu ni ñi jappé seigne touba da na ñu won seigne touba da ngay nan ko nik nako nankutum nako katew nako na seigne fall neena buñ yox yoxi seigne touba kenn du ko jàppante fi ne bari na luñ lay jiñ ci seigne touba boko woyé du ñew boko ñaané doom du ci seigne bi dé seigne bi activé na dé seigne bi dafa taxaw yow mi ñaan ndax ni nga wara mel mel nga ni ba nopi loolu mooy problème bi yow ndax ni nga war a mel mel nga ni mais loolu mooy sëñ Fallu yàlla jagleel ko melo yii jagleel ko cër yu rëy yii jox ko tedd nga ji yi borom man la juyaat lii ñuy nettali ci moom lépp da koo jëf gisal njéeréer yi daan yàq tool yi moo leen ko aaye ban génn réew mi njéeréer yi allié la woon wàcc ci tool yi mu jàpp jàppal leen ma ci benn ñu jàpp mu ne yéen wax leen seen moroom yi li ñuy bàyyee ci tool yi def jumaay sëñ Bamba ji yéene leen mott génn réew bi muy tàmbali daara ju mës a sant moom sëñ Fall dane liñ ciy bayee bu ci dara mooy naree mooy sëñ Tuuba na mel ni xorom maanaam da ko wat bu ci dara mooy sëñ benn doomu gerte mës ta mooy ci mbayum sëñ Fall te mës bay te amul ay ton yu dul jeex mais lu mu am def ko ci sëriñ Tuuba loolu la ko yàlla jagleel muy jëf juróoy tey ba jumaay Tuuba jee ba muy nekk juróomi sooroor mu liggéey ko mu nekk juróomi sooroor mu jël sooroor ba tudde ko Cheikh Ibrahima Fall Babul Mourideen loolu di jëf jox boo demee ci biir këram fekk fa comme tuddee Cheikh Cheikh euh, Ibrahima Fall Babul melo woowu la ko yàlla jagleel mu juboo ak boroomam waaye tey bu fekkee ne dañoo bëgg a xam dëgg-dëgg yàlla bi mu nu ñu baax séddi ñu respect dafa baax nitu yàlla dañ koy wormaal nitu yàlla dañ koy waggar fi ne bari na ko naan baatin amu feek kenn yorul dara mbóot jërul génneeg fetal mbóot mbóot jërul génneeg fetal laa wax aw dàll képp lañ koy tap baatin bu wér a ngi fi ku ko jar danga ko gis mbóot nag jëru ko mbóot muy cappa-cappee ko wax ak ñuy coowoon kenn du la faale dañ lay romb rek benn yoon yaa mu mbóot bi jël daal wi ne ci tab ngaari teew mais bala nga xam ne baati na ngi fi nga jëf lu jot baati na ngi fi sëñ situation yu ne ci yeneen i réew ak réew mi sëñ Fallu rek leen yeneen situation ana Houphouët Boigny lu leer nañ ñi la Houphouët Boigny tawatut fu ne mu dem fa ci àdduna mën ta toog ci sëñ Fallu lañ ko yabal sëñ Fallu dafa yónnee ndaw sëñ Fallu ñëwut de demut de alaaji Cheikh Gueye la yónni na ko li may def ci sa bët yi laa ko def boo wàccee ci aéroport bi na la xool avec bu ñu xool ko dalal ko na ko ana loolu sëñ Fallu jox mu ne ko nga xool ma saafara si nga xool ma ba ko xoolee la wér loolu nekk fi lu wóor a wóor ñun suñ kilifa duñ ko campagnal suñ kilifa duñ ko waxal lu amul mais lim def faaw nu wax ko ku nu ko jaral na bit amul ginaaw ñu deful dara amuñu dara ñooy propoogal ne ci roq ko wut lu ñuy lijjanti te defuñu tus nun ñuy dañuy wax lu leer sëñ Touba mooy sëñ Touba waa këram ñii nii mu mel nii leen yàlla séddi ab yar ak teggi na fi nekk nag waaye lu waaye ku nu raw niwu fi boo demee Touba da nga fay fekk ku mën a doon président de la république mën a doon imam mën a nekk mufti ca Makka di ubbee ba noppi di sukk di boof loolu la ñu yàlla sédd nun nun wonewu waaye nag kenn du nu xiixaan da sëñ Touba du tiit lastu aqaafu durra xalqi baax da ba fawaltu amri ila rabbi sama tawxiid fi la yem sëñ Touba dane man kenn du ma xub kenn du ma napp kenn du ma xiixaan ndax damaa wakkiilu ci yàlla dafa am taalibe ne nga wax ko diggante ki nga xamante ne moo di Mouhamadou Fadal ak ki nga xamante ne moo di Cheikh Ibrahima Fall. waaw Cheikh Ibrahima Fall xam nga kooku mooy problème bi dama koy wax toujours moom mooy problème bi gën a garaaw Cheikh Ibrahima Fall ñi ëpp ci ñiy déngat Cheikh Ibrahima Fall la ñuy déngat. Mhm. te l'islam yaa oustaz min xosni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaan bokk na ci li rafetal l'islam yi nit génne ci la yónnee ko comme doo Baye Fall sa sëriñ woote wuti Baye Fall mhm. man loolu ci Baye yonent bee ko wax mandu ci yow bu yomal xiyaamee kenn du woo Cheikh Ibra Fall woo Sëñ Tuubaa di la ci laaj benn génn ci Cheikh Ibra dafa bëggoon Sëñ Fallu Sëñ Fallu bëgg ko Sëñ Fallu daana wax ne ñaar laay roy muñuk suuf taalibe bi bàyyi Cheikh Ibra Fall maanaam ni suuf di muñe du jàmbat du wax dara moom lay roy la ca topp mooy taalibe lay Ibrahima Fall loolu la Sëñ Fallu wax tudde ko soorool bi bi jumaa ji noppee daa génn junneem na ko xam lu muy tudd ma jox la junni ku ne wax la nga yow mu ne boo leen xam nga joxoon sama junni Lamp Fall Lamp Fall Babul Mouridine boo demee ci këram Cheikh Ibrahima Fallum sëñ Falloo ngi mu tudde ko doom bëggoon ko lool sëñ Cheikh Ibrahima Fall bëggoon ko lool ba mu feeñee ci Daaru Salaam la na ko bu nu bu nu fàtte fàttewu ko ndax bi moom na ko tudde tey booy dugg Touba séen ko booy génn Touba seen ko mu sut fépp taalibe googu la doon roy ci moom alaaji lu Mbàkke borom ngëneel yi ak melokaan yi ak tedd ga alaaji lu Mbàkke borom dënn bu yaatu ba ku mëna muñ ko ku tabé ko borom la ja ku ak borom ku wufoon ñëpp mu alaji fallu mak ñim bokkaloon suñ tubaa ñëpp mu jox leen ciir bob looloo taxon mu melni ba mel ak ni cheikh ibrahim fall ak ko tuddu ci mag ñi non la seigne fallu mel ak mom jële ngeen jëf ku ci am laaj tamit voilà ah, ñoo ah, ñoo ñoo dëgmal euh, mm-hmm. comme niñ ko waxee sànq ñu jubbanti waat kazu rajab mm-hmm. euh, ñu dëgmal ko dimanche mm-hmm. euh, fi mu nekk nii ak xew-xew yi tax ñu dàqandi li nga am loo xamante ne sëñ bi wax na ko ku nekk ak sa pas-pas fu mu toll na nga ko màggalee sa kër naka ngeen ko gisee. jëfe ndigal. li wax kay lu leer ndigalu sëñ bi noo commenté déggoo ma ne bu la sëñ bi taxaw nañ dee dañuy dee. Mhm. leneen ko sëñ waxee nii lañ koy def. amuñu luñ ci xalaat amuñu xalaat noonu bu sëñ bi waxee amuñu xalaat. lu sëñ bi wax la ñuy def. bu ne woon bu subaa bu leen fanaan Touba ñëpp génn. wallaay kenn xëccoowu ko moom. mooy borom Touba mooy Cheikh taxa suñu bopp lañ ko jox ak suñuy suñuy baay suñu moko mom moom lu mu nu digal nu def lu mu teral nu bàyyi kenn nu deglu lu ndegalul kenn nak lo gis nu def ko ndigalu sëñ bi ndax dégluwu ndigalu kenn mu su war mbam ba war gele ñaari kilifa di su ko ñun genn la ñam moy sëñ muntaha lu mu nu wax lañuy def haaw sëriñ fallu ak sëñ Saliou moy nonu bo demé tay keur sëñ sëñ Fallou da nga fa fekk turandoo woo xam sëriñ Saliou la tu sëñ fallu da ko fonkoon wax ne mbëtt mu magal ci pax yep lay dugg moom sëñ Fallu ndax sëriñ Saaliwu xam nga dañuy wax ne mooy xiyaasul baraaya ci xet li bindee fi waxuma ci bëtin gomis waxuma ci sañ-sañ daara ju toll ni xel koom koo xam ku ko def ci lislaam wala ma bëgg ñuy wax lu teelu leer nga xam ne doon bëtin maa mais sayri maa lay doon daara ju toll ni xel koom fukki junni ak ñaar ci dongay laxasaay dëgg yaa leen di jàngal alxuraan يا لين دي فاج يا لين دي دكل تي اي تباخ يا لين دي تيرل اي لال يا لين دي قوتي لي مبوب تا كين دو كي دومي غوميس لي خامي ووجي كي دومي سانجي كو خامو داو دومي جول دي نيو غا يور كو كو خام كو خام كو ديف لول امول امول ها امول امول كون تاي سيغ ساليو رك دوينا بون تيغون سي لامب جي بالا نيو اندي فين نان اندي سيغ ساليو دوينا غيسوموكو موي كو خامني لا خاف كان فقرا للاسلام حاميا مطيعا bi la nag bi ahni muhammada sëriñ sari moy ki nga xam dafa nekkon sagul islam tey l'islam tenu l'islam mosoo ko dégg ci dara lu dul l'islam aw ma ci defar aw ma ci yàq 92 ans la dund jurom ñet fu juróom ñeent fukki ak ñaar musta amel yalla wenn wax musta togn benn mbindeef doon khalifa serigne touba dem ba atam yi mujj at mi mu wara genn génn mu jël 10 milliards na mako participer ci liguey serigne touba foko ma sa deg ku def loolu jité sa khilafa ba yag wara a def jël 10 milliards na maa ko participé ci santé yi ak liggéey bi fu mu am denc ci compte ma dajalé serigne Cheikh hmm. lolu di aw melokanam ak jëfam ba fajaru ajjuma gi fi serigne Cheikh di ñibbi kurus gaa ngi ci loxoom. amé lu ben jam ak amé lu ben waxtu boromam. ta bu nattu sa ñew comme bala yi ni bala da na ñew bu diis wara wacc jam yi serigne sëriñ Cheikh di ko hmm. wacc yaram ba jeex bu xeyna na sarax ta balante ak tuub delu ci yalla ngay nongu nongu di di waaxu di wéy te fekk kilib dékkul balaa bi dégagé ko ba mu sori ko suñ ngi mel ni tey gendarme yi nekk ci frontière yi léegi-léeg nga tëdd dina la fekk ñëw ñu dogale ko faj mbiram réglé ko ba nëbb ko yëgoo dara nga yeewoon ak dëkk bi jàmma ngi fekk ca frontière ba am na ko nga fekk da nga ko yow yaa fa yëgut Sëriñ noonu la meloon قياس البرايا شيخ صالح يشلي امور البلاء لا يمتري فيه مفلس وشيخنا به لوس به من يلوس به فسا امن ليس بنا اليوم سي بلاه جاكاتي كو خونا كي قتل بي ديف موي سيرين سالم موي ديمبل ني سيرين سالم يوكو توبا دفر جماجي تخاو تخواي بوري سانت اي دارا دي فنانوك دونغاي دي لين ييرم دي لين نيوان ما سي تاغالي دارا مثلا جوغي توليا dem ba ci yoni xol yere seen ci xorondo mu ne dara joge mu len yobbo touba tagale len ki te sey du tagale ken e gabe te dara ji yele ba yele kookoy borom yërmande ji moom Serigne Saliou. Mm-hmm. Moussa du ñaan la jami alwara lay ñaane ka annahu rahmatul muhtadu taatuna iyahu wajibatun bil basri wal qilami Serigne Saliou mooy yërmande yàlla ci kaw suuf noonu la meloon ci Serigne Fallou Mbacké Serigne Fallou fonk jumaay Touba ji bi ñu koy liggéey ñaari gaal la gaal goo xam ne ci lay def addiyaam mu joj boppam ak gaal goo xam ne ci addiya ko taalibe jox xoolal Serigne Cheikh Saliou fu béréb jekk ngeen war ko def stade sëñ Saliou def ko sëñ Cheikh def ko jumaa stade Mbacké ba mm-hmm. jumaa <laughs> rond-point ba ca corniche juma demal Dakar juma demal Njaaréem juma demal Mbuur juma te béréb bu nekk ak a jekk station ak a jekk nangam mu jox ko yàlla te yàlla tax te bu koy liggéey it bindul kenn leetar ne yónnee ma waxul kenn jox ma daa boole noppeeg dal gis nga conteneur sëful dara ñoo bari coow ci réew mi xorong xorong defarul l'islam tous ba noppi ku jóg ñu di la diingat jàpp ne diine mbubbum kese képp laa ko sikki nag coow lu bari l'islam la da ngay jëf lu symboliser lu leer na ñu xam ne ñi nga jëfal l'islam mais l'islam yi kese joo xam ne bala nga waare nit ñeeg dàkk ah, dàkk min bari yeeg dàq coow bi kese loolu day l'islam ñëpp a ko man <laughs> l'islam jëf la da ngay def li ñii def